ku mu doon rek yaa nga jubbi ca melokaanu aadama booba da nga di ku sell ku laab ku texe jamono kay moo lay soppi def la ca melokaan yi nga xam ne yàlla gërëmu ko eh teerloo ko fa yàlla gërëmul itam ku fa dugg loolu mooy wax ji rek aadama daal mooy àtt bi وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم موسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أحبط الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق آل موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم الرب وعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى رواه الخمسة xadisa ngi boo xam ne day tekki rek dogalu yàlla yi ni mu jiitoo abu hurayrata nee na yonent yàlla aadama ak yonent yàlla muusa ñoo mosoon di weerante ñoo mosoon di dàggiwante di waxtaan ci seen biir donte seen jamono ya soree na nag roox yi mën na dajee di waxtaan ndax ku mu doon ci yéen mën naa am ak sax gént gu ko tegtal ne lii lu mën a nekk la yaa ngay waxtaan ak ku fi jóge woon yàgg na wala lu war a ñëw te yëg tegul kon kay ab yónnentab yàlla jombul mu mën a wax ak beneen yónnentab yàlla ca la feeñ mbaa li nëbb ci gént la wala janoo la kon aadamaa ngi wax ak Muusa yónnent sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko nettali nee na ñoom ñaar ñëpp nag salaamullahi na nekk ci ñoom ñoom ñaar ba ñuy waxtaan seen waxtaan ci seen borom Muusa Adama daf ko mujj yeey Adama moo amoon dëgg ci moom lan la Muusa waxoon Muusa dafa ne ah Adama yaa ngi ngeen déglu bu baax xadis boobu maanaam yi xóot na am na solo lool Adama la ak Moussa Moussa ne ko yow yaay Adama Adama yaa ngi yow la yàlla bindee ci loxoom yow la yàlla wal ci sa biir rooxum yow la yàlla digal malaaka yi ñu sujjóot ci yow yow la yàlla dëkkal àjjana gannaaw loola mu wàccee la ci àddina indi la fi ndax sa ay bakkaar yow yaay Adama mii Adama ne ko ah Moussa yow it yaay ki yàlla tànn def la ngay yónnentam def la ngay kàddum jox la alawa joo xam ne leeral na ca lépp luy ay mbiram maanaam téere boo xam ne leeral na ca lu mu mën a doon yow la yàlla jegeel boppam di déeyaale ak yow ndax fekk ndax fekkuloo ne yàlla bind na tawreet ñeent fukki at njëkk mu bind ma ndax fekkuloo ca biir tawreet yàlla di wax ne wa asa aadamu rabbahu faxawa yàlla wax ne aadama mooy na boromam ngir beew ndax fekkuloo ci téere ba loolu mu ne ko akay mu ne waaw noo ma yee noo ma yeddee nag ci jëf joo xam ne yàlla bind na ko ci man ne dinaa ko jëf njëkk mu bind ma ñeent fukki at njëkk mu bind ma yàlla wax na ne man dinaa ñëw yi dinaa def lii ñëw naa def naa nii def naa loolu noo ma yeddee ci jooju jëf bay wax naan man maay ki def bàkkaar yi tax yàlla wàccee ñu ci àddina jëlee ñu àjjana ku yey adama yey na Moussa kon dogal rek la ñuy wax ba léegi dogal yaa ngoogu loo gis muy am rek ci dogal yi la amee an abdillahi qaala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه روحه ويؤمر بأربع كلمات بكتب بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون أو حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه الأربعة Abdullah nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam waxtaanal nañu ne te moom yonent kat mooy koo xam ne lu mu wax dëgg la te lu mu wax it dañ ko war a dëggal ndax mooy yonent ab yàlla ne ku mu doon ci yéen bind nañ melokaanam ca biiru ndeyam ku mu doon ci yéen ñépp bind nañ melokaanam ca biiru ndeyam ñeen fukki yow bés yoo xam ne dafa nekkoon di nut fa ñeen fukki bés yoo xam ne booba mën yu rek la gannaaw loola mu nekkaat àllxasan diirëb ñeen fukki fan yoo xam ne yépp dafay nekk di benn morceau boo xam ne bu way la rek nekk ci biir gannaaw loola itam mu def ko mudratan mudratan mooy mu nekk benn morceau yàpp diirëb ñeent fukki fan gannaaw loola mu wal ci moom rooxu rooxu ñeent fukki fan mu digal nag ko ñetti baat mu digal maanaam ñu bind ko ci wa yu'maru bi arba'i kalimatin ñu bind ci moom ñeenti baat ñeent yooyu mooy lan warsag warsagam gudd fanam jëfam ku texe wadi lay doon wala ku texe lay doon kon jaaruwaay yooyu yëpp doomu aadama bu mu mën a doon yàlla bind na ci biiru ndeyam ne dana jaar ci jaaruwaay fa muy nekkee mën niyu ba deret ja mort yàpp wa dem ba nekk morso boo xam ne sol nañ ci moom rooxu toog fa ba muy juddoo ñu bind ca moom ndax moom borom warsak lay doon wala ku ñàkk warsak ku gudd fan lay doon wala ku gàtt fan ay jëfam lu muy doon jëfi ku texe la wala jëfi ku texewadi loolu yëpp amal nañ ko ci biiru ndeyam njëkk mu judd ko yonent bi dal di ci teg waat ni maa ngi waat ci ki nga xam ne kenn du yàlla ku dul moom ne ku mu doon ci yéen dana jëfee jëfu ñooñ àjjana ba nga xam ne dara desul digganteem ak àjjana lu lu lu yem ne benn xasabu nii benn ziraa mooy diggante concu ak baaraam mu ne bu fekkee yàlla daf ko bindoon ne ku war a dem safara la mu nekk ci jëfam yu baax ba dara desul lu dul nag dee rek yàlla xiir ko ca lu bon mu dee ca loola dem safara wala boog yàlla bind na ci moom ne moom ku texe la muy jëfee jëfu ñooñ texewat yi nekk ca nekk ca ba dara desul lu dul digganteem ak dee lu yem ni benn xasabu ba la benn xasabu la rek mu dal di jëf jëfu ñooñ àjjana loola dugal ko àjjana kon jëf yi gis ngeen ci la ñuy àttee nit ñi ku nekk rek yàlla daf koy yombalal yoon ya muy jaar ba teer ca fa yàlla na mu ca moom mu teer ko nit ñi nag duñ benn am nañu texe ñoo xam ne dañoo judd sol mbubam texe di jëfee jëfi ku texe ba dee ca texe am nañu judd sol mbubam texe wadi nekk di jëfee jëfu ku texe wadi ba dee ca texe wadi waaye am nañu judd sol mbubbam texe ndeke dañoo nar a texe wadi nekk ci jëfi ku texe ba dara desul lu dul dee ñu dee ci texe wadi am nañu judd itam sol mbubbam texe wadi nekk ci jëf yu bon nekk ca nekk ca ba dara desul lu dul dee yàlla dugal ci ñoom jëfi ñu texe ñu tex ñu texe kon ñeent yooyu ku ci xàmmi sa bopp kenn xàmmiwul sa bopp te nag lépp yàlla amalee na ko nii ci la saxaaba yi doon waxee waaw yonentu kon nag suñu jëfi lu mu doonati mu ne jëf leen rek kullun mu yasarun lima kulli xala ku nekk dañ ko bind jàppandal ko yoon ya mu war a jaar ndax mu teeri fa yàlla na mu ca moom ku yàlla xiir ngay def lu mel nii daje woog ñu baax ni doo mën a jaaree fenn foo déggee lu bon doo gis fenn fu ñu jëfee lu bon na la wóor ni yow yàlla yow la yàlla sol boom texe texe wadi kat du juddoo ci lu dul tase ku texe wadi rek mu wax lu la gëm loo nga weddi la nga nekkoon ci texe rek topp yoonam texe it nag lii la rek boo naree texe dana la mujj tase leeg ñu texe nga jëlee ca ñoom melokaanu texe rek jëfee seen melokaan ak texe kon luñ cay déggee ku yàlla xiir nga àndoog ñu texee ña rek yow yaay ku texe safaan bay safaan ba rek waaye nag lépp rek yàlla amal na ko ca azal njëkk mu amal feeñu mbir yi عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بغداء وقدر حتى العجز والكيس رواه الشيخان ومالك حديثا في كسلو موي عمر نينا يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا لم مانا دون رك يالا عمل نكو jiitu lu mën a doon rek yàlla amal na ko lu jiitu woon feeñam ndax sax kii ku am xel lay doon wala ku ñàkk xel lay doon sax loolu amoon na ci waa ji njëkk mu juddu an ibni omara an innabi sallallahu alayhi wa sallam qaala kullu shay'in bi qada'in wa qadrin hatta al-ajz wal kays rawahu shaykhaani wa malik عن أبي هريرة قال جاء مشرك أو جاء مشركو قريش يقاسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يحسب يوم يسحبون في النار على وجوههم سوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر من بوكاتك bokkaat bokkaalekatu maanaam yéefaru xurey si daal ñëwoon nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xuloo si ak moom di weeranteeg moom ci mbirum wax jooju ñuy wax ne yàlla dogal na lépp njëkk feeñu mbir yi biñ ñëwee di wax ak moom ci loolu mel ni loolu daf leen jaaxal ñoom lu munul nekk la foofu nag aaya dal di fi wàcc aaya bi yàlla di wax ne yawma yushabuuna fi nnaari ala wujuhihim suuqoo masa saqar inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar bis ba ñuy dugal gaaye war a dugg safara ñuy dugg safara ñu ne leen kaay leen tey ngeen mos nag mbugalum safara mbugalum safara saxar yàlla ne tey da ngeen xam ne lu mu mën a doon rek amaloon naa ko ci dogal aaya ba fa la wàccee عن ابن عمر بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواهما مسلم والترمذي حديثا نيونكو جيلي ci عمر بن عاص يونت بي صلى الله عليه وسلم wax ni yàlla bind na ni mu dogalee mbindeef yi yëpp njëkk mu bind mbindeef yi njëkk mu bind asamaan yeeg suuf yi ci juróom fukki junne at njëkk mu amal yi mu amal dogal na yépp ni nii la koy amalee ci juróom fukki junne ak njëkk mbir mi am rawaahu ki ko solo mooy muslim ak tirmisi yi عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قيل ف- ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له رواه الأربعة laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ne mu ngi jógee ci imran doomi xusaynin mu ne wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naka la ñuy xàmmee ñooñ àjjana ci ñooñ safara ak ci lan la ñuy jëfee seen jëf yi fa fii ma yaamalul aamiluuna bu fekkee loolu la jëf yi lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen na ngeen xam ne daal ku mu mën a doon ci mbooleem bindeef yi yàlla daf koy jubale ca lam namm ca moom rek ku ngeen fekk muy jëf-jëf yu baax ya rek ne leen ku baax kaa ngoogu ki yàlla namm ci taxee ngoogu ku ngeen fekk ci safaan ba it ne leen waa jaa ngooga ka yàlla namm ca moom safaan ba rek lii daal mooy atte yi ngeen mën a atte woo mbir yi kon yal nañu yàlla di xiir ci lim bëgg ak lim gërëm te it kat ci lañ nekk kon de mun nañu wax ne ñun ñëpp ñu texe lañ ndax kat lii dañu alxuraan wax ku nekk ci yii ku texe ngaa kàngoogu ñoo ngi ci na suñu yaakaar dëggu ne ku ñu jege sax ñun day texe texe wa di moom du am ci ñun ñi mukk ku ñu jege rek day texe alhamdulilah kon nag eh, bunta gi gudd na waaye waxtu timit jot na mel na ni waxtu yu ñu jàng daal gàtt na lool ci man cee leeral xadis yu bari ndax takkusaan buñ koy julli cinq heures sept heures ñu julli timis te mel na ni balaa nit ñi dajee six heures dina jot benn waxtu lañ am pour jàng bu ngeen ko doy la doy na ñu yëbbaloo ko te dégg ko ndax mbir yi dégg rek a ci am solo jàng ba mu jeex te dégguloo bariwul solo kon maa ngi leen di dénk ngeen yóbbaloo ko dem di ko nafataat ba nga xam ne bu ngeen dellu si waatee toog kuñ ci laaj loo dégg ci hadis bi indil ñu hadis benn rek ci njàng ak wax ñu ci sa dégg di nga ci mën a wax loo xam ne lu yaatu lay doon ñëpp mën ci jëriñ maa ngi leen koy dénk yéen ñëpp yéen nañu yàlla may ak dégg te jubal suñuy cër xiir ñu ci lim bëgg ak lim gërëm ci waxin ak jëfin ci daahir ak baatin ci mbooleem jamono bu mu doon ak barab bu mu doon bi jaahi nabi al mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi mawlana cheikh radiyallahu anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل قدر من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل قدر من دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبقنا سرق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل قدر الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulillahi ci xéwalug lislaam alhamdulillahi ci yàlla def ne ñun suñu cër la ndax ay jullit lañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man lam yahtam bi umuri almuslimina fa laysa minhum ku yitteewul mbirum jullit ñi bokkoo ci ñoom ñun ñëpp dañuy woowee suñ bopp jullit te yonent wax na am mbir ne ku ca bokkul bokkoo ci jullit ñi kon day baax ñu xam mbir moomu ndax ñu fexe yittewoo ko ndax ñu bokk ci jullit ñi may laaj kon lan mooy mbiram jullit ñi ak lan mooy yittewoo jëm ca jullit bu nekk maa ngi koy laaj lan mooy mbiram jullit ñi ak lan mooy yittewoo jëm ca mbir mi la yitteel yow kenn muy nga lekk suur nga mar mën a am loo naan nga rafle ut loo sol ak lu nu mel loolu sa yittee jëmm ji la fardu ayni la ci kenn ku nekk waaye mbir moo xam ne jullit ñëpp a ko bokk nag kenn ku nekk yittewoo ko ndax xam nga ne yittee jullit ñëpp la ba yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku nekk ci jullit ñi war naa yittewoo mbirum jullit ñi te ku ko yittewul bokkuloo ci jullit ñi day baax kon jullit bu nekk jéem a xam mbir moomu man la wala boog yooyu mbir yooyu yan la ak lan moo yittewoo jëm ca yitteeb wax la wala yitteeb jëf la wala yitteeb yéene la wala wala wala lii laaj laa laaj kenn ku nekk ci ñun mu jéem a seet luy tontum te buñ ko tontoo itam ba gis ne lañ tontu lii la day baax ñu yaatal laaj bi jullit bu nekk yittewoo xam lan mooy mbiram jullit ñi ak lan mooy yittewoo jëm ci kon laaj la laaj naa ko fii ci jotaay bii waaye bëgg naa mu yaatoo ci yéen ba dem rajo yi nekk Sénégal bu mënee daj sax àddina bi yëpp jullit bu nekk yëg ne ndeke am na lu loo xam ne jullit ñëpp a ko bokk te jullit bu nekk war na ko yittewoo mu gën a baaxit rek ndax mun ngaa wax ne boobu xadis mun nañ cee déggee lépp luy lislaam mun nañ cee mbokkoo ñun jullit ñëpp di dimbalante ci dëgg ndax lislaam li ko tax a jot li ko tax a jóg mooy jàmm nit ki rek ci àddinaam ak alaxiram li rek tax a jóg lislaam kon nañ yittewoo doon julit ci xam lan mooy mbiram julit ñu yittewoo jëm ci ni ko yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee lii mooy laaj bi ma leen di laaj nee naa nag ku nekk na ci xalaat jamono bu jotaay amee yaatu ku nekk jéem caa andi luy tontum ku taseeg sa morom laaj ko ko mu jéem caa andi luy tontum muñ ko mënee laaj ci laajuwaay boo xam ne ñëppay déggandoor itam kuy tontu ñu jàllalee ko foofu ñëpp déggandoor tontu ku nekk it ni ki rajo yi wala journaux yi wala wala mu gën a baax laaj baa ngoo ko rahim ñu jàng sunu njàngum tey ñoo ngi ci ba tey attaaj aljaamiu lil usul fi ahadisi rasul sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi tàmbalee tey ci hadis boo xam ne day wax ne an anasin an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل wal imaanu bil aqdaari rawaahu abu daawuda daan naa laaj nag balaa ñuy tàmbali njàng mu bees mu nekk ku mën a tënk li njàngoon ci la jiitu jàngoon nañ nangam nangam nangam ñu fàttali koo ko la jàll tàmbalee ko li teew ku ñu koy defal mais bu nekk
wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jéem a yëkkati kàddu ngir fàttaliku lenn ci bunt yu ñu gisoon ci dart yi wees ñu tàmmalee ci benn addis boo xam ni moo jeexalee buntu bi doon wax ci ngëneeli yi am ci diine bi yonent bi di sallallahu alayhi wa sallam di baaxee mbokki jullit yi di leen xamal ne bépp képp kenn ci jullit fekk mi ngi saxoo di rafetal diineem islaamam bépp jëf bu mu ci jëf ci lu baax rek yàlla dina ko fulandinal tàmmalee fukki fulandin jëm ba juróom-ñaari téeméer bu fekkee nag ab jëf joo xam ni safaan wala bu ko dab yàlla kem jëf boobu rek la koy bindal ci beneen riya riwaaya ñu xamal ñu fa ne yàlla mën na koo jéggal bu fekkee jéggalu na sax ci jëf jooju soppandi soppandil ko ko jëf ju yiw kon ñu déggee foofu rek ne dina lislaam ngëne la ngi ci bu baree bare bari te jullit bi fépp fu mu toll rek na gën a dollu wàkkirlu te am yaakaar ci mbaaxu boroom dugg tamit ci bunt boo xam ni mi ngi ñuy wax ne laa yaqbalu llahu mina dina ilal lislaam yàlla daal amul benn lu waay di jàpp jàpp ko comme diineem lu dul islaam rek la ci gërëm foofu it yonent sallallahu alayhi wa sallam ci hadis yi ñu dikkal ñu fàttali si ne mi ngi naan wa umirtu an uqatilu nnaasa xata yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullahi wa yuqimu salata wa yutu zakata fa wa yutu zakata
ba nañ ko waxee woon rek dëgg la jógee naa ci ne yow de jàng nga liñ romboon taree yombul nag waaye tari wantu nga te nangul nañ la ne mën nga ko itam ndax keneen nit boo xool dina wax lu mel ni li mu wax ndax njàngale mbooloo la woon ñëpp doon déglu ñëpp lañ doon waxal kenn wax na ci bëgg naa beneen yoon ni ma leen koy waxee du ma wax ku mën damay joxoñ rek kenn ne waxal ngeen fexe nag ba bu ma bett kenn mu ñàkk xam lañ jàngoon noonu ngeen koy defee jàngalekat yi ci école bi du ngeen wax ku man rek kooku la ñuy déglu ci mbindam ak ci waxam da ngeen di laajandoor lépp ci ay këyit ci tableau bi ñëpp tontu ku tontu mooy sa diplôme bañ lay joxe ci njàng ma kon nag yéen ñëpp góor ak jigéen njàngale mango bi bismillahi rahmani rahim hadis bi ñu jàng léegi yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax anas moo ñu ko nettalil yonent ne sallallahu alayhi wa sallam ñetti mbir a ngi bokk na ci cosaanu gëm yàlla ku gëm yàlla ku nekk rek ñetti mbir yooyu day doon sa mbir ba ca njëkk mooy fegu lépp loo am ci ay lor ka wax la ilaha illallahu bu mu jot yooyee lor sa lépp loo am ci doole booy jógee di ko xeexee ku yéefar ka xas wax laa ilaha illa allahu war naa mucc ci sa lor yooye te wala nukafiruha bi zanbin ki xas wax laa ilaha illa allahu buñ ko wax mukk ne ko yéefar la ndax bàkkaar buñ gis ne def na ko wala nuxrit duñ ko génnee itam ci lislaam ci bàkkaar yu mu def def bàkkaar bàkkaar ya bari ba tax ñu ne ki génn ci lislaam déedéet bàkkaar yu bari bàkkaar yu bari la rek waaye nem wax na laa ilaha illallahu rek kenn la ci jullit ñi li war ñu jëflante koog jullit mooy li war ñu jëflante koog moom kon benn googu ñaareel ba mooy al jihaad nee na jihaad moom jàlloon na ñu waxtaan ca te jihaat mooy loo xam ne ay mbiram yàlla xas na ba amal ko ne nii la bim ma yónnee la xas amal ci man ne jihaat dafa war a am ba ki mujj ci xeet wi war a xeexee kiy dajjaal di ñëwug yonent yàlla Isa ak imam Mahdi jihaat dafa war a sax ba faw ñu koy jihaad ak képp koo xam ne rek weddi na baatub laa ilaha illa allahu muhammad rasulullahi yaat dafa war di wéy ñu koy jihaat ak ñi weddi ba ba mu Isa di ñëwee ak mahdi yu di xeex dajaal nee na loolu atte la boo xam ne bakkaaru ku bakkaar du génnee jihaat mukk waaye mandu ku mandu it mënul teggi atteb jihaat ne day teggeeku ci xeet wi xas nañ ko amal daal nii la nii la jihaat dafa war te jàngoon nañ nag ne jihaat ñaar la jihaat bu mag ak jihaat bu ndaw jihaat bu ndaw mooy jëli yet yeeg xeej yeeg jaase yeeg xeexukaayu ngànnaayu loxo dem sangoo ji ak ay yéefar ca toolu xeex ya ba ba ñuy waxee laa ilaha illa allahu xeex ak ñoom ci lépp luy suñ doole lii mooy jihaat bu ndaw bi lii la yonent wax te saaba yi foogoon nañ ne mooy jihaat bu mag ndax jihaat la boo xam ne li ci dee ci ay yéefar bari na waaye li ciy dee ci ay jullit itam bari na lool ñi ciy ñiwisi ak gay gaañu gaañu it bari na lool rawatina xeexu badar nam réyee yonent jógee ci ak saxaaba yi ñëw ne leen nag xeex jeex na jihaat bu jihaat jeex na ñu ngi jógee ci jihaat bu ndaw ñu ngi jëm ci jihaat bu mag saxaaba yi gëlëm ne ko waaw lii ñu jógee mooy jihaat bu ndaw kon lu war a doon jihaat bu mag mu ne mooy jihaat ak sa bakkan ndax bakkan bi mooy noon bi gën a rëy ci nit ki ca yéefar bale nekk fële ñu ko doon xeexi kon xeex ak sa bakkan ba mën a tegu ci njubu lislaam jëfee yu yàlla digle yi bàyyi yu mu tere yi loola mooy xeex bi gën a rëy kenn ku nekk xeex ko ak bakkanam kon jihaad bu mag a ngoogu kon jihaad dafa war ñu koy def ba ba Isa di ñëwee mahdi yu di xeex dajal Isa ak mahdi yu danañu ñëw danañ xeex ak dajaal te ñu ngi koy reye itam Sham yooyu yëpp dina ñëwi ca fa ñuy waxee mandargay bis pénc wa qaala ubadatu bnu samit li ibnihi ya bunaya innaka lan tajida taama xaqiqati alimani xata taclama annama asaabaka lam yakun li yuxti'aka wa ma axta'aka lam yakun li yusibaka سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب فقال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني رواه أبو داود wa tirmisi yu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ki ñu ko nettali nettalil mooy abadatu doomi saamit abada doomi saamit moo doon waxtaan ak doomam ne ko yow suma doom doo mën a am mukk cafkaa gëm yàlla feeg yëguloo ne lépp lu la dal rek lépp lu yàlla dogal ci yow dina ñëw ci yow lépp lu yàlla tudd ci yow dana ñëw ci yow dara mënu ko tee ñëw ci yow te it lépp loo xam ne mooy na la ci lii lii am na nga xam ne yàllaa ko tudd ci yow rek sa gëm yàlla du mat doo mën a mos mukk cafkaak gëm yàlla neexaayu gëm yàlla du lii da nga koo xam lu la dal rek mooy la yàlla dogaloon ci yow lu la dalul rek yàllaa ko tudd la ndax maa ko wax de waaye maa dégg yonente sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni li yàlla jëkk a bind mooy xalimbaam gi xalimba gi nag mooy li bind lépp lu yàlla nar a amal ca azalu azal ya yonente wax na ne yàlla dafa wax xalimba gi ne ko bindal xalimba gi ne ko yow suma borom lan laay bind yàlla ne ko bindal lépp luy atte yi atteeg lu mën a doon ci mbir yi rek bindal tàmbalee ci jamono yii may amal li may amal ba bés penc di taxaw lu war a am rek na muy amee bind ko léegi lu mel ni nga jël sa film di film ay xew-xew ñu ne film bi mooy xalimba gi ñu ne film bi filma lépp lu romb rek lu yëngu lu wax lu mën a doon rek jël ko ca la mu nekkee lépp xalimba gi bind ko lu raw ni film bi filmé lii jàll tàmbalee ca ba la njëkk a bind di am di dem ba ba bés penc di am di taxaw lépp rek xalimba gi bind na ko bindin bu raw ni film bi filmé li muy film kon loo gis mu nekk rek dafa feeñ ci waxtu wi mu war a feeñee waaye lu amoon la njëkk feeñaayam ndiki film bi ngay gis muy génn filmé woon nañ ko njëkk ñu teg ko di ko seetaan yow suma doom gëmal lii lii de yónneen sa ko wax ba tey yow sama doom dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne képp koo xam ne dee na te gëmut lii ma wax bokkul ci mbir mii bokkul ci sama yoon teguwul ci li ma yàlla sant ne mbir yépp nii la nañ koy jëfee li mu tere ñu bàyyi ko ku dee bàyyi lii rek kooku bokkul ci ñun jullit ñi kon lii la abadatu ibnu samit wax doomam ja abu daawud moo indi hadis bi ak imam tirmisi yi عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر aliyin ibn abi talibin danañu koy tudd di wax nag karamallahu wajhahu yàlla teddal na kanamam lu tax ndax moom mosul jaar ci kéefër ndax jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam njëkkoon mu woote ne yàlla yónni na ma la jiitu woon loola ñoom ñëpp dañ daan sujjootali xërëm waaye yàlla def na imaam aliyu moom bi mu juddoo bay am fukki at ak juróom-ñett di mat muskalaf war a gëm lépp lu yàlla santaane ci moom foofu rek la yónent wootee diine lislaam mu wuyu ko gëm ko kon moom mosul sujjootal xërëm ndax bu ko sujjootaloon njëkkoon sax mu am fukki at ak juróom-ñett yi duñ ko tuddee ak jaamu yàlla ndax ndaw la woon comme fa matee rek di góor fa la yégee ne yónent bi yónni nañ ko mu gëm ko moo tax karama teddal na allahu yàlla wajhahu kanamam mosul si jootal xaram danañu wax it imaam ali ne radiallahu anhu yal na yàlla gërëm ko lépp ñaan la ak tàggaate imaam ali nee na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jaam munul gëm yàlla lu dul dafa gëm ñeent yi gëm yàlla ak jaam du mat lu dul dafa gëm ñeent yi na gëm ne dekki am na na gëm la ca njëkk mooy na gëm na seede wax ni laa ilaha illa allahu kenn du yàlla lu dul yàlla mi yàlla ci yàllaam gi matale ci mboolem jamono ak barab lépp luñ taxawal ne ab xërëm la di ko joxoñ du yàlla yàlla nekkul kuñ mën a joxoñ ci barab bàyyi barab kon gëm yàlla ak waaye du mat lu dul mu gëm yàlla ci yàllaam gi waaye gëmit ne man yónnentab yàlla laa yàlla moo ma yónni ci dëgg gëm yàlla te gëmoo yónnent ngëm nga matul ngëm daal mu ngi matee ci wax ashhadu an laa ilaha illa allahu wa anna muhammadan rasulullah benn ngëm na gëmit ne dee am na loolu moom ñu ngi janoog moom jamono bu nekk mbirum dekki kay xanaa waaye dee moom kenn du ko weddi te it war nañoo gëm ne dekki lu yomb la ndax ku amuloon ñu amal la amal lu amoon moo gën a xanaa yomb ci amal lu mosul am kon nag moo suñu gis jaam bi jaam bi judd na day dee yàlla ne dafay dekki itam kon bokk na ci lu yeneen santaane jaam bi boole ko ci ngëmam mu ne dekki dina am gannaawug dee te it na gëm dogal ne dogal it am na dogal yi dañuy am mbir yi lépp dafay amee ci dogalug yàlla kon lii la yonent wax sallallahu alayhi wa sallam ngëm du mat lu dul ki gëm dafay gëm ñeenti yi gëm ne yàlla rek a yàlla yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko yónni gëm dee gëm dekki gëm dogal ñeent yaa ngoog عن أبي عزة عن أبي عزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل الله إليها حاجة رواهما الترمذي أبي عزة جلينة يونس صلى الله عليه وسلم يونس ne bu yàlla dogalee ci jaam ne dafa war a dee ci aw suuf ci suufu sàngam maanaam ci barab sàngam wala réew sàngam bu yàlla dogalee ne jàmm ba fa la war a dee fokk mu defal ko aajo yu nekk ca barab booba mu yittewoo dem ca aajoom jooja ba defat ko fa mu dee fa lii la yonent wax sallallahu alayhi wa sallam ndax kuy judd ku mu doon lim war a am ci wasak ki mu war a doon fi mu war a jaar ba fa mu war a dee lépp danañ ko amal ca waxtu wa ñuy def rooxu ca biiru ndeyam kon tibb nañ ci suuf sam mu war a nekk ëllëg fañ ko war a rob boole koog nekkam ga mooñaale ko ba nga xam ne dara du ci jaar lii de yónnent ko wax sallallahu alayhi wa sallam kon ku gëm dogal yi kooku ku nekk ci dund bu dal lay doon ndax doo toog di tiita ki ragal ak a jaaxle da ngay dal di dégg rek la yónnent waxoon ne kullun muyassarun lima xuliqa lahu ku nekk dañ koy jàppandal rek lañ ko bind yoon yi ci jëm mu teg nekk ca rawaahuma at-Tirmidhi moo ko solo han ibni Umar beneen buntu la buy wax asaabul bida kal qadriyati wal marjiati buntu la boo xam ne dafay wax ci al murjiatu ak al qadriyatu han ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة إن مردوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ينتك صلى الله عليه وسلم القدرية aw kuréel la xadriyatu mooy ñi nga xam ne dañoo weddi mbirum atte yi atte dogal yi ñu ne amul ay nit la ci jullit ñi yonent nee na ñooñu nag ni majoos yi rek la ñu mel ñan ñooy majoos majoos mooy ñiy wax ne yàlla ñaar la leer yàlla la lëndëm yàlla la ñu ne lépp lu baax mu ngi juddoo ci leer lu bon mu ngi juddoo ci yàlla mi nga xam ne mooy lëndëm ñoom loolu la ñu wax kon alxadriyatu ci xeetu yonent bi la ñu bokk ne ay julit lañu waaye majoos ñoom xam nañ ne duñu ay julit yonent nag moo melal mu ne ñii di ay xadriyatu ni majoos yi rek la ñu mel ndax ñoom it ñaar la ñu gëm ñaar yooyu ñu gëm nag moo tax ñu mujj mel nii majoos yi nga xam ne ñoom it ñaar la ñu gëm ñoom lu ñu gëm ñoom xadriyatu yi dañu wax ni yàlla miy dogal mbir yi miy bind jaam yi nangu nañ ne yàlla am na ay jullit lañu de gëm nañ ne laa ilaha illa allahu muhammad rasulullah waaye dañoo gëm ne yàlla moo amal jaam yi loolu nangu nañ ko werantewuñ ci waaye jaam bu nekk nag yàlla may na ko dooley boppam ba mën a amal lu boppam moom itam kon ñu ne yàlla bind jaam bi waaye jaam bi mënal na boppam ba mën a tànn ci mbir yi lu ko neex def lu ko neexul bu mu ko def gëm giñ gëm loolu nag moo leen weddiloo li yonent wax moo leen weddiloo mbirum dogal moo tax itam yonent ne ñoom comme majoosi lañ bokk ku gëm yàlla da ngay gëm yàlla gëmaale ne dogal yi ci yàlla la jógee amul luy am lu dul yàlla ko amal ci coobareem jaam bi du ca dara ku gëm ne jaam bi am na kàttan mën naa amal dara rek weddi na dogal te ku weddi dogal weddi wale na yonent sallallahu alayhi wasallam weddi na sax yàlla moo tax yonent di wax ne ñoom ñoog ma joo si benn lañu ndaxte loolu gëm ko warul am ndax yàlla moo wax ne moom de moo bind nit ñi ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf ndax yàlla moo